أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبتي في الله إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñun ak yéen ci waxtaan wiñ leen tàmm defal te mooy lettre bi ñuy adressé way dencante yi waxoon nañ ne semaine bi passé dañuy tëj lettre bi ñu doon adressé góor ñi jublu ci jigéen ñi waaye yàlla dafa dogal mbokk yi semaine bi am mbokk boo xam ne mbokk bu jigéen bu déglu waxtaan bi mu ñëw fii di ma wax digganteem ak boroom këram jafe-jafe yi mu am bi ma ko waxee ñu taxaw ci liñ ci xam ci wàllu diine ci wàllu jubanti ak orienté li yàlla wax ak yonent ñu dénk ko waaye dinaa leen nettali tuuti ci jafe-jafe boo xam ne ndaw si am na ko digganteem ak soxnaam ndaw si am na ko digganteem ak boroom këram boroom kër gi toog juróom benni at yu mu joxul ndaw si dund waaye séqul ak soxnaam lal jafe-jafe yooyu jàpp na ndaw si ndaw si xiif mar jooy wër fu nekk lu nekk mu dugg ci muñ ba loolu yóbbu ko mu puuse moom ndaw si te mooy yàlla tabaraka wa taala waaye ndaw si moo may nettali nee na keroog mu mooy yàlla ba tey nelawatul guddi te wax na ma ne man bon ma ba ma ko defee ba léegi xam naa li ma def lu bon la maa ngi koy réccu di ko jooy la ma mucc dugal ay àndandoo yu bon yu ma ne comme sa jëkkër baaxul toppatoowu la defaral sa bopp utal ma benn waay ba ma séq ak moom la ndaw si ñëw ci ñun di jooy di tuub di delluwaat ci yàlla tabaraka wa taala ndaw si ñëw ci ñun di tuub di jéggalu yàlla ñu wax ko sarti tuub ñaanal ko yàlla ndaw si dem ak ay rongoñam ak toroxloom ci borom bi tabaraka wa taala tàmbali muur ñu jox ko téere mu commencé jàng di ñëw ngoon bu nekk démb ci guddi démb daanaka ndaw si mën nañ ni ñaan gi mu doon ñaan yàlla tabaraka wa taala ci tuubam boobu yàlla nangul na lu tax ñu am fit wax loolu mooy waa ji mu toogoon juróom-benni at gisu keroog ba mu ñëwee tuub toroxlu jégglu dellu ci boroomam bi moo waajee fanaan ba waaje bokk lal yàlla ko wammatal waaji ba waaji indi ko yàlla indi ko ci biir néegam moom ndaw si fekk bi mu ñëwee wax nañ ko da ngay dellu ci sa borom tuubal jooyal sangool say rongoñ su jootal wooral fan yëpp mu nekk ci loolu ba biir yàlla dimbali ko wommat borom kër gi borom kër gi ñëw fanaan si biir borom kër gi ñëw jéggalu ko juróom benn at yi mu toog gisu ko wala sax mu ngi ko doon gis waaye mu ngi ko doon romb te du ko faale looloo tax tey ñu ubbiwaat tomb bi tuuti pour dellu si ci waat pour joxewaat ay ndénkaane mbokk yi suñu ragal yàlla ci sunuy soxna mbokk yi tey bokk na ci ndénkaane yi ñuy dénkaane mooy yow jullit bu góor bi laka fi rasulillahi uswatun xasana war nga defi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam royukaay bu mat bu rafet waroo roy yonent bi rek ci suñ ne yonent nga ni sallallahu alayhi wa sallam allahu da nga war a roy rey yonent ci yonent mu doon dundee ak waa kër nga dundee noonu ak sa waa kër laka fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswatun xasana yow sama mbokku julit bu góor war nga roy yonent ci yonent munu mu nekkee woon ak waa këram ñaareelu ndenkaane kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam fi mihnati ahli yonent bi mi ngi taxawoon ci liggéeyal waa këram di leen jàppale ci biir ak ci biti guddi ak bëccëg tàngaay ak sedd yonent baa ngi ci biir këram di jàppale ay soxnaam ñetteel laa takun xudwa sayyaa bul nekk bul nekk yow sama mbokk jullit bul nekk ku ñaaw ku ñuy roy nekkal ku rafet ku ñuy roy ku ñuy toppandoo bul nekk ku bon ku ñuy roy ndax yow dafa am kuñ lay xooloo te kooko gën ñëpp dafa am ku la yàlla joxoon baaraam ne la royal kooku ñeenteel alwafa ulaha ngàllawaay matalal sa soxna matalel li nga séq ak moom loo ko war a jox loo ko war a jàppale loo ko war a defal ngàllawaay matal ko juróomeel la taxudu taraf an awaati fiha bul sajj say xef ci ay sentiment ci yu baax yum lay defal bul ci sajj sa xef xëppil say bët di ko xool su la mayee mbub mu rafet ne ko vraiment rafet su la toggalee ne ko neex na de ko gërëm de ko ñaanal yàlla amal sentiment ak yu baax yim lay defal juróom benneel muy xëral ala tayyibin min al qawl del xër di waxtaan ak moom ci waxtaan ju neex wax ju neex wax ju neex sarax la al kalimatu tayyiba sadaqa wax ju neex sarax la kon del xër yow sama mbokkum jullit di waxtaan ak sa soxna wax bu neex juróom-ñaareel mooy del foo ak moom del kaf ak moom ci biir kër gi bul def kër gi kaso bul def néeg bi kaso bul def kër gi jahannama bul def néeg bi jahannama kaf leen ree leen du ngeen ay malaayika du ngeen ay jinne bul ñëw rek fas sa kanam déedéet del kaf ak say soxna del kafak sa soxna del kafak say doom ndax loolu mooy ndénkaane yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juróom-ñetteel mooy sa njaboot sa soxna dafa am ci yow àq bul ko ignorer dafa am ci yow ay droit droit yooyu bul ko sàggane bul ko ignorer jox ko ba mat sëkk góorgóorlu sa kemtalaayal kàttan ba droit yooyu nga respecté ko nga bañ ko ignorer nga bañ ko sëgg pour di ko jaay doole dafa ne yow yaay boroom kàttan bi dafa ne yow yaa mën lépp lu la neex nga def yàlla la ëpp doole yàlla moo la ëpp doole te yàlla doole gim la ëpp jaayu la ko juróom-ñeenteel ci ndénkaane yi ñu lay dénk ba tey yow sama mbokkum jullit idfa billati hiya ahsan del fayonte ak sa soxna lu baax sa soxna daf la def lu bon daf fayalante nga moom lu baax alquran la idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim sadaqallahu alazim del fayante ak sa waa kër lu baax bul fayanteeg ñoom ci lu bon rawatina sa soxna dana nekk gàcce ci góor mu naan sa soxna mu naan soxnaam da ngay dox dox lu di nga xam ne maa la gën a def
dangay def lu bon
day ko lu baax ndax loolu mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lu mooy ndénkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow sama mbokk julit fukkeenu ndénkaane mooy alliqi sawt wa zakirha billah ajal yar bi fàttali ko ci yàlla yar bi sànni ko yar bi daggate ko yar bi dugal ko ci fufeelu mbalit bi ku alxuraan mënalul dara ku waxu yonent bi mënalul dara koo xam ne kenn mënu koo waar kenn mënu koo dénk kenn mënu ko yedd mbokk yi yar mënulu ko dara soo amee soxna mënoo waxtaan ak moom yàlla nee na yonent bi nee na mënul ci moom dara li ma jàpp mooy yar du ko mënal dara kon yow sama mbokkum jullit del waxtaan ak sa soxna sànnil yar bi fukkeel ak benn fexeel ba sa soxna di yëg ne mu ngi ci sécurité ija alha tasuru bil amaan fexeel ba mu yëg ne moom mu ngi ci sécurité mu ngi ci sa kiiraay mu ngi ci sa keppaar mu ngi ci kóolute fexeel ba mu yëg ne moom kat mi ngi ci dal na yëg loolu ci dund gi muy dund ndoog yow na yëg ne mi ngi ci sécurité fukkeel ak ñaar ci ndénkaane yi ñu lay dénk hiya uxtuk qabla an takuna zawjuk sa soxna sa sœur la avant muy nekk sa soxna sa rakk la sa rakk la balaa muy nekk sa jabar kon del waxtaan ak moom del toogandoog moom di wax ak moom comme ni ngay waxee sa sœur avant muy nekk sa jabar sa sœur la innamal mu'minuna ixwa fukkeel ak ñett yar ak orienté ci xereñ ak ndànk ak tarbiya wa tawjih bil xikam wal lii yaral sa soxna orienté ko ay orientation yu mat sëkk yu baax ci xereñ ak def ndànk defal ndànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane na ne jigéen butéel la jigéen veer la veer nag ku ciy liggéey wala nga soxla ci dara moom nga def ndànk ndax xam nañ ne veer am na lu ci nekk ci kelam ñeent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na saa wa saa ay waxtoom moom moo ko moom man nga ko jox moom la dina nekk gàcce sa soxna am ay coo waxtu nga dem toogee ko grand place nga dem naani ko ataaya nga dem toogee ko ci àll bi toog ko ci kanamu télé bi toog ci kanamu téere yi toog ci kanamu nangam toog ci kanamu nangam sa soxna tëdd di la xaar mbokk yi yonent bi nee na sa soxna waxtu yi mu moom nanga ko ko jox saa wa saa fukkéet ak juróom laa tajal xayaatak maaha ala mabda'il axaf min atawaay bul def mukk seen dund yeen ñaar bu nekk dund goo xam ne ci lor rek ngeen nekk fexeel ngeen dund dund gu neex dund gu yàlla bëgg dund gu yàlla gërëm fukkeel ak benn bul ko ndokk bul fexe ba seeni noon ree leen yéen ñaar ndax am ngeen ay noon peut-être seen sëy bi ngeen di sëy am nañ ko d'accord peut-être koñ bi ngeen dëkk am na ñu leen bëggul parce que li ngeen di dund parce que am na ñu leen neexul parce que moom am na ñu ko neexul parce que yow am nga ñu la neexul kenn ku nekk mi ngi socc bëñam ba mu weex di xaar dara xew ba mu ne la xamoon naa ko wala waxoon naa la ko kon bàyyi leen xel loolu yéen ñaan ñëpp bu leen ndokk seeni noon seen kaw keel ak juróom-ñaar sa soxna pour mu fegu pour mu protéger wu pour mu bañ a dem mooy yàlla uti yeneen góor ci yow la mën a amee li koy satisfaire soo ko defalul li mu bëgg su ko seytaane poussé wala xarit yu bon pousse ko wala ay àndandoo yu yu bon mën na dem uti ji feneen loolu mu jële ci musiba mu ñëw séq ak yow wàlla la musiba boobu yéen ñaar ñëpp musiba dal leen kon seen fegu yéen ñaar mi ngi aju ci yow ku góor gi fukkeel ak juróom-ñett ci ndenkaane yi kun kariman nekkal ku baax soo nekkee ku baax yàlla may la wërsëg yàlla may la barke nekkal ku baax ci sa biir kër yàlla jàppale la nekkal ku am yërmande ci sa biir kër yàlla yërëm la irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yërëm leen ñi ci suuf waa asamaan yërëm leen arrahimuna yarhamu rahman ñi yërëmaate yàlla moo leen di yërëm fukkeel ak juróom-ñeent yonent bi muy dénkaane nee na def leen ndànk ci butéel yi def leen ndànk ci veer yi rifqan bil qawarir ndànk leen ci veer yi jigéen veer la jëflante nag moom ndànk balaa nga koy toj jëflante la sa soxna ndànk balaa nga koy tasaare balaa nga koy moñoxe ndax yonent bi nee na jigéen veer la ñaar fukkeelu tomb mooy fexeel ba sa kër seytaane bu mu ci dugg utrud seytaan min baytik bil quran wa salaam sa kër dàq ko seytaane dàq ci seytaane looy dàqe seytaane sa kër alxuraan fexeel kër gi ndax alxuraan di fi jib waaye del julli ci biir kër gi sa biir kër di ci julli dee fa teg alxuraan nañ fay jàng alxuraan ndax seytaane mën a sori kër gi mbokk yi waxtaanu tey bi ñaar fukki tomb yi dañ doon dellu siwaat doon dénk sunu mbokku góor yi sunu mbokk yi denc soxna sunuy pap sunuy xarit sunuy am di jàmm sunuy soppe ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ñu dégg topp assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu